ba ci ñi nekk ci whatsapp bi ñu ngi leen di nuyu tey ñu am benn gan boo xam ne ndaanaan la xam ngeen ko mari Ndiaye <laughs> mari Ndiaye nag mu ngi yëngal jamono ji donc euh, ku gis ñaari single yi mu tegale jox ko sénégalais yi euh, ragal dawuma dara ak ni ma mel ñaar yooyu dinañ ci ñëw <laughs> mais avant tout dama koy bàyyi mu nuyoog ñu koy suivre mari Ndiaye américaine la gambienne la sénégalaise la <laughs> euh, Marie maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay. Ah, di rafetlu invitation bi di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan Feeling Dakar. Mm-hmm. Ah, comme ni mu ko defee saa su ne rek di sànni sama nuyoo all the way back to Atlanta ah, USA. giving a big shout to all my American people. Mm-hmm. bu ma jógee Atlanta dem Gambia nuyu all my Gambian people di leen nuyu di leen jaajëfal. Mm-hmm. waaye nag di la di nuyu waa Sénégal. waa Dakar képp koo xam ne tamit yaa ngi bëggee Made in Ndiaye ci diaspora bi everywhere. fan su Merry Ndiaye fu mu munti nekk rek fekk naa la fi nga nekk nuyu la. Mhm. comme ni ko anglais yi waxee Merry Ndiaye euh, français yi di wax Marie Ndiaye. Marie N Ndiaye. donc daal lu ne lu nekk damay dégg Marie lu nekk laay dégg. Marie Ndiaye Marie Ndiaye. mais Merry Ndiaye la Merry Ndiaye comme Merry Colobane. d'accord. <laughs> mairie Colobane d'accord ça c'est clair <laughs> donc euh, ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci hospitalité bi dalal mhm. bi ak ubbeeku bi macha allah ñu ngi la ciy gërëm d'abord euh, fi ñuy commencer ak yow wala mhm. ñoo dugg ci euh, suise bi dëggantaan mooy Sénégal am na ay actualité yu fi xew <laughs> bi ci bi ci njëkk mooy accident yu tegaloo yi uh-huh. euh, y a beaucoup de morts uh-huh. presque soixante et un ci lu matul un mois uh-huh. ñu des ci tali bi ñaari accident yu tegaloo loolu quand même am nga ci ay message yoo ci lancé par rapport ak chauffeur yi nit ñi tukki ak gouvernement bi nga xam ne ñoo yore sécurité wu askan bi fi may njëkkee mooy euh, di masawu euh, képp ko xam ne ñàkk nga fa mbokk wala xarit euh, di ñaan yàlla euh, fi ñu jëm noonu mu gën a leen lool fu ñu jógee suuf oyo seen kaw mm-hmm. euh, yàlla jégal leen seen i bàkkaar mm-hmm. yàlla moom lu mu nam si jaam mooy am yoon yi nag di wax chauffeur yi ak ñi nekk ci yoon yi ñu def nang mm-hmm. ndax man damay damay use yoon yi all the time di dem Gambie mais chauffeur yi mooy loolu maaradaytaal li ni ñuy dawalee di wax nit ñi daf ñu daw nànk aputoon mooy na ko fi daw nànk yegg nànk jarul yàkkamti ah. ñu def nànk ci yoon yi Euh, di wax tamit euh, gouvernement bi tamit ak ñëpp ñoo xam ne ñu teg ay mesure yoo xam ne tey nit ñi mën nañ ko respecter ndax ñu mën a daw nank ci yoon yi ndax métti na ah, boo gisee premier accident bi bi am ah, foofu noonu euh, muy ay 53 morts ah, dafa métti. oui après démb rek barki démb ñuy gis ñoo xam ne tamit am na beneen 19. Mm-hmm. ak blessure yoo xam ne kenn mënu ko compter di wax chauffeur yi ñi daw nànk yegg nànk ah mm-hmm. jaru yàkkamti. ndax ñu mën sauver bi oui c'est ça d'accord muy message bu am solo daw ndànk yegg ndànk nit su yàkkamtee dee def ndànk <laughs> waaw euh, sinon mën nga dal ci dara mhm. euh, far fa coincé wu dootoo génn foofu ah, donc nag di gën mooy def ndànk mhm. message boobu am na solo artistes yëpp loolu la ñuy wax mhm. donc bu ñuy ñëw ci carrière Marie Ndiaye euh, comme mairie Euh, mairie mhm. bu Colobane comme ni nga ko waxee <laughs> mairie mairie Ndiaye ah. yes euh, mairie kañ nga commencé sa sa carrière artistique. bi nga mhm. xam ne moom ngay dund jamono ji Sénégal nga ko commencé Gambie wala Amérique. Um, bi may def mairie nag mairie Ndiaye yàgg na wéy. d'accord ah, du tey depuis bu ma nekkee xale mën naa ne. commencé naa wéy bu ma nekkee école def formation di wéy dafa nekk loo xam ne mën naa ne euh, virus bi yàgg na ma dugg. may woy nag di dem école mais génnewu ma sama premier single bi ma pare high school bi ba graduate high school mm-hmm. uh, laa doog am laa doog a génn génne sama premier single mais ma génne ko mm-hmm. uh, bi may ñëw nag mu am fu mu jaar ndax bi ma ñëwee 2017 mooy ma nekk université mm-hmm. ma ñëw ci projet Papa Thione bi uh, ma woy ci ci la ci laa commencé enregistré yeneen ay yeneen single mais mm-hmm. premier single bi ma fi indi mooy premier son bi ma def ma ko ma def ko ak baay Babou big shout out to Baye ah, faxas mm-hmm. moom laa defaroon premier son bi mu ngi tudd Angel mm-hmm. ah, biñ ko defee ma envoyé ko sama papa sama nijaay muy Papis Ndiaye pour mu def version mbalax bi parce que R&B la woon xam nga R&B music American music la woon ma bëggoon mu ne am tuuti touche ci suñu suñu musique mhm. waaw bi ma ko ko envoyé nag euh, mu def ci lu nice Papa Thione ci la ko dégg laajte kii kan la ñu ne ko doomu sa xarit la euh, ci la ma woo pour ma wéy projet am bi ci laa def son bi ma ñëwee fii Sénégal nekk naa fi presque neuf neuf mois nine months ci laa def son bi ma def ak Abdou Guité son yi ma def ak Admo Flow mhm. euh, après mujjee nag yàlla def son Abdou Guité bi moo njëkk génn mhm. ah, après bi génnee loolu noonu ci la nit ñi commencé xam mairie mais bi may njëkk génne son Abdou Guité bi c'était à 2019 si je ne trompe pas ci laa njëkk ci la mairie ñaa njëkk génnee single mhm. mu nekk son bu tudd Believe ak Abdou Guité mhm. sénégalais yu bari foofu lañ ma xamee sénégalais gambien yi ah, après ci la mairie ñaa commencé nag dugg ci musique nag d'accord yes euh, kon si je comprends bien da nga jàng musique waaw musique dafa nekk loo xam ne euh, bëggoon naa ko après bi ma ko bëggee ma ne ah pourquoi pas ma dem tam def formation rek pour gën pour gën a dooleel rek li may def. dama fa jàng tamit. d'accord da nga koo bëgg en plus nga dem yokk ci xam-xam yokk xam-xam waaw pour mu gën a gën a gën a yaatu. comme li nga wax def nga pas mal de featuring. Mhm. ay ay Abdou Guité Seck ay Edmond Flow yow euh, ak Thione Ballago Seck. Mhm. ci euh, kii bi nga xam ne projet bi nga xam ne moom la amoon. Mhm. Euh, bàyyi ko ginnaaw. loo ñu mën a wax ci Thione d'abord bala ñoo dem ci kenn. ku ma bëgg ku ma bëggoon macha allah. Euh, mu doomoo ma képp ko xam Mary Ndiaye rek boo xam mm. boo ma xamee rek xam nga ne doomu Papa Thione la euh, may nuyu waa kër gi di nuyu Mama Kiné ak Waly ak toute la famille di leen nuyu mais koo xam ne daf maa ma waxee ci moom sax peut mm. day nekk répétition mm. ci nit ñi li ñuy dégg ci moom euh, baaxoon na bëgg na nit yaatu na am diine ku gëm yàlla ku nangu nangu yàlla li muy dogal ah dëgg euh, la jóge na fi mais tout le temps rek saa yu daan toog rek euh, boo toogee moom rek dalay dellu ci yàlla mhm. di la wax tout le temps nga bàyyi sa xel ci àddina ndax àddina du daal tout le mhm. temps da wax ne mhm. àddina daal du kër ma koy ñaanam nag fi mu dem noonu mu gënal ko lool lool lool fi mu jógee mais boo na Mairie Ndiaye rek ak Papa Thione moom loolu moom ñëpp xam nañ ne Papa Thione sama papa la waaw waaw bëggoon ma lool c'est ça ngeen ngeen ngeen bokkoon benn projet boo xam ne mhm. yow nga bokk ci ñi mu sollicité ngir nga bokk ci loolu bi nga demee ba mu yàgg nga liggéey ci projet bi mhm. euh, toog di xaar mu génn mhm. far ñu annoncé la ne la coon décédé na loolu lan la la def moment bi nga ko yégee puisque loolu moom c'est c'est très dur oui c'est c'est dur parce que mun naa ne projet bi sax euh, bokk naa si ñi ñi ko njëkk a parce que man bi may wéy projet bi man maa wéy version internationale anglais Euh, bokk naa ci artistes yi ko njëkk a ah. mm. loolu fekk sax idée bi ñëwuloon sax pour ñu indi ay wéykat yeneen woykat pour ñu woy ci euh, c'est la famille quoi boo déggee ne tey génn na àdduna ñu ñëpp la bett. Mm. surtout ñun ñu ko jege. Mm. Euh, parce que mën naa ne ñàkk naa bàyyi ah. mu nekkoon lu métti macha allah. mais dañ koy sant yàlla boo déggee ma ne macha allah dañ koy sante yàlla ndax ci yàlla ñu jugee. te ci moom la ñuy dellu mm-hmm. dañuy dooli sant yàlla ndax def nañu def na ci ñun ñëpp ah, képp ku mu doomoo woon wala nga doon doomam mm-hmm. gëm yàlla mm-hmm. gëm ne eh, yàlla bu soxla ñëpp ay ñàkk métti ah, woon na nag torop comme ni mu méttee ci ñun yaakaar naa ne noonu la métti woon ci sénégalais yi ci gambien yi ci waa àddina yëpp ndax eh, Papa Thione monument la woon ah, ci musique du mën a musique sénégalaise musique mondiale ci monde bi mu métti woon nag c'est dur ah <laughs> c'est dur rek laa mën a wax. mais euh, moom dem na. mais mm-hmm. bàyyi na fi te quand même koo xam ne donn na ko ci woy mm-hmm. ci melokaanam. Mm-hmm. ci léppam peut-être. muy Wally sekk ndax yéen ñaar yéen a ngi am benn relation bu doxoon sa diggante ak coon est-ce que mu ngi continuer ak Wally. oui comme ni ma ko waxee rek c'est la famille. d'accord ñooñu ci mën nañ bokk euh, man tam ci ñoom laa bokk Wally sama mag la comme ni ma koy waxee euh, maay rakam. Euh, c'est la daal. benn benn famille bi la. benn famille waaw waaw c'est mhm. la donc des fois naka la lay def nga dégg yenn polémique yi autour de lui. Mhm. lu nekk mu koy dégg lu nekk ñu koy teg ci deram bi. Mhm. moom Wally loolu la naka la lay def en tant que artiste ni moom. en tant que artiste dama koy comprendre euh, en tant que famille nag dafa métti sa nit ñu koy teg dara. mais en tant que artiste euh, yoon bi ñu choisir la c'est bi risques du métier. Mhm. ci la bokk euh, boo nekkee boo siiwee euh, siiw du jaam borom boo siiwee lu nekk dañ koy yëkk teg ko sa der bi. Mhm. Euh, boo siiwee waaye ñëpp ngay doon waaye ennemi ñëpp ngay doon. Mhm. c'est ça. d'accord noonu lañ choisir. moom ngeen choisir nekk ay artistes. dafa am yoo xam ne dafa ànd ak moom di nga dégg lu ne nit dina la gis du la xam sax dëkk la foo dëkkul. c'est comme ça. Euh, di la waxal baat yoo xam ne. di la yoo xam ne xamuñu ko. c'est euh, dépassé quand même hmm. c'est mais da nga xam ne ci la bokk ah. parce que hmm. boo boo choisir nekk ci milieu boo xam ne c'est public. right euh, nit bu nekk ngay gis dina am ñoo xam ne dañuy bëgg dina am ñoo xam ne nañuy bañ. Hmm. loolu la ñëpp mënuñ la bëgg. boo nekkul sax artiste or nekkuloo koo xam ne danga nga siiw sax ñëpp mënuñ la bëgg. right c'est comme ça. mais munoo munoo déglu ñëpp ah. da ngay foncer rek. waay sa ça mu mu ngi noonu donc dañuy ñëw ci côté sa papa mm-hmm. moom aussi am na lu bari lu mu def ci wàllu musique mm-hmm. fii ci fii ci Sénégal artistes yu bari moo leen daan dimbali teg leen loxo mm-hmm. yóbbu leen euh, fu ci mel ni Amérique ak li ci topp di leen dimbali ci yu bare bari loo ñu mën a wax ci moom parce que moom itam il paraît que bokk na ci ñi lay teg loxo oui sama papa mooy sama manager ah, mooy dari manager laa koy woowe euh, mooy sama manager ah, moom nag promoteur la woon nekkatul promoteur bi bi ma commencé woy ah, dafa dafa dafa bàyyi euh, promoter musique mais comme ni mu ko waxee euh, gëm naa ne artistes yu bari dootuma leen présenté kan mooy Ablaye Ndiaye euh, yóbbu na artistes yu bari États-Unis ñu bari jaar nañ ci loxoom. Mm-hmm. macha allah ma nuyu artistes yi tamit artistes yoo xam ne ñëw nañ fa ku ci mel ni Ndeye ah, mm-hmm. ma koy nuyu moom tamit de passage Abdou mm-hmm. Kité Aline Bayner Fallou Dieng papa Youssou abu papa Thione bu ma limee damay juma artistes yi bari nañ macha allah ma leen du ñu yoon tam de passage. Mhm. Ah, mais sam papa promoteur la. Ah, mu nekk koo xam ne yëngu na ci musique pandan des années di ah. euh, may màgg yëpp ma koy gis muy indi artistes yi di leen jàppale. Mhm. après mën naa wax ne virus musique foofu la ma dëggee ah. d'accord ma koy nuyu moom tam hi daddy. <laughs> Mhm. voilà euh, am na loo xam ne mu ngi xew temps yi dal ci benn artiste bu ñu naan Sidi Diop te loolu mhm. euh, dañ koy dégg aussi ci sa ci sa papa da daan yóbbu ay nit des fois pour liggéey loo leen mhm. dafa am ñoo xam ne dañuy jékki-jékki rek jàdd maanaam daw <laughs> Sidi Diop dem mhm. tournée di ñibbisi moom dong moo ñëw presque moom rek moo ñëw ñi mu yóbboon ñëpp dañoo daal di daw bàyyi ko wan ku ginnaaw loolu en tant que artiste bu fekkoon ne yow tey da toog ci place su Sidi Diop. Mhm. lan ngay ressentir ci loolu. foog naa ne ñu ñëpp ñu ñëpp artistes yëpp ñoo ko métitlu hmm. ah, di ko masaw ci li am parce que tey euh, dafa métti tey nga ànd ak ay nit euh, ñu ngeen tàkkalikoo hmm. xam nga ànd ni mu amee tàkkalikoo tamit noonu la amee. mën hmm. ah, nañ ne ñoom am nañ seen raison. mais li ngay santé ci nit boo xam ne yàgg ngeen euh, construit ngeen dara. Mhm. mu jékki-jékki ngeen séparé wu du ma ne sax mu war wala mu daw mais ngeen séparé wu séparation am na. Mhm. Euh, day métti. Mhm. ndax sa nit euh, boo xasee ba miin ko rek boo leen tàkkali ko day day métti. day métti ah, ma koy masaw moom tamit ndax lu métti dal na ko. waaye di di ko wax rek courage ah fois yàlla moom mooy xool li mun a ma ci nisam di ko def. mën na am na lii leneen lu neex moo ngi ñëwaat lu daax lii. d'accord ah, lu daax li ah, di ko masaw di ko encouragé moom daanaan la ah, Sidi mhm. te xam naa ne sax ne am na yoo xam ne ay surprise yoo xam ne mu ñu koy indi di ko préparer moom ndaanaan la di ko masaw waaye di ko wax ne tamit courage a mhm. ndax euh, musique moo demee noonu àddina moo demee noonu ni ànd mhm. ànd day am tàkkali ko am rek c'est ça d'accord euh, ma ñëw ci say featuring yi nga <laughs> jot a def yi bi ma ci gën a neex man te marqué ma ci mooy yow ak Abdou Guité Euh, ah, boobu moom Sénégal gi yëpp nangu nañu ne mhm. waaye la bu am solo boo xam ne mhm. da ngeen ciy lancer ay message mhm. man personnellement bokk naa ci ñuy déglu waay bi mu lay motiver parce que c'est la patience qui construit la montagne bon foofu moom daf may dafa am lu bari lu muy def ci man naka ngeen def ba daje yow ak Abdou Guité xalaat way boobu teg ko pour euh, joxe ko comme genre message Euh, Abdou Guité euh, comme ni ma ko waxee bokk na ci artistes yoo xam ne sama papa indi na leen États-Unis mhm. ñu xamante euh, depuis bi ma nekkee xale ah may commencé wéy di focc wéy bi mhm. ah, am na yenn compétition yoo xam ne dama daan dem di ko gagné sax fekkee na ko ah, ma koy nuyu moom tamit Abdou Guité Guité club laa koy wax man mhm. ah, di ko nuyu moom tamit bi ñu ñëwee tombé ma nekk ci projet Papa Thione bi bi ñu ñëwee ñu daje studio dajewaat studio studio Papa Thione ma a ko maa ngi xaar sama son ak yow ma pourquoi pas ci suufu studio Pape Thione la ñu toog ah fent son bi. noonu la demee ah, noonu. ci suuf suuf studio bi ah, deuxième studio bi nañ ko fente euh, mu nekk loo xam ne comme ni mu ko waxee rek ni mu duggee suñu xol yi génn ci xol la génn dugg ci ay xolaa ah. hmm. noonu lañ ko génnee ah macha allah sénégalais yi ñu laaj ko parce que dama doon wax sama papa temps day wax ne booy def son euh, na yeete da am message. Hmm. ak lu mu mënti musique neex na lool ah ka fooree lépp foora dañuy foo rek mais. Euh, na am message boo xam ne da nga koy véhiculer di ko bàyyil nit ñi pour nit ñi di la ko xoolee wala di ci am lu ñu jàngat. Mm-hmm. Ah, te gëm naa ne believe euh, liñ ci namoon ah, mujj na am parce que nit ñi ku ma gis tey na non non sa son boobu noonu daf may dimbalee am na ku ma gis dafa am na ma noo bi méttee ba métti bu ma dégloo sa son bi daf may encouragé. Mm-hmm. Euh, sant yàlla la nga def mm-hmm. son boo xam ne tey même bu ma fi nekkalotee sax yàlla na yéex. nit ñi dañ koy. déglu di ci di ci inspiré wu di ci am lum leen lu am lu am lum yokk ci ñoom quoi. Mm-hmm. Euh, Marie Ndiaye xale la. Mm-hmm. waaye. Euh, wayul pour pour pour benn moment rek. Mm-hmm. parce que artistes yu bari dañuy way pour moment bi ñu toll. Mm-hmm. après bu jàllee jàll na. Mm-hmm. donc danga nga choisir wayal ñëpp. ba pare itam way pour le temps. maanaam way boo xam tey ànd ak jamono. jamono du ñëw nit ki di ko mën a déglu. oui c'est ça. dafa mel loolu ngeen choisir yaa yaa Abdou Guité ci son boobu. <laughs> waaw waaw loolu lañ choisir parce que euh, son bu nekk ak li mu li ci nam ak law ci bëgg a def. tey bi ñu defee son bi. Euh, comme ni ma ko waxee mu nekk son boo xam ne dafa véhiculer message. Mm-hmm. mais am na yenn son yoo xam ne tamit da ngay. da ngay foo ah, ah am na jamono. Mm-hmm. Ah, tendance tuuti. Mm-hmm. c'est ça. Ah, musique moom. yaatu na. Euh, te musique dafa bari ay façon dañuy dañuy am fan rek. c'est ça <laughs> wax nga ko léegi des fois da ngeen di foo. def tendance tuuti. Euh, ni ma mel. <laughs> Euh, bokk na ci sound yi nga xam ne presque tendance la. Uh-huh. ñu bari gis naa dañu koy dañ koy reprendre ci seen i TikTok. Uh-huh. parce que y a beaucoup de choses dedans yoo xam ne. Uh-huh. def nga ko ci ci côté musique bi ci côté texte bi. gis naa ni foofu da doon riime. oui. yaa ko bind wala rapport yi ñoo la bindal ngay rap. non maa ngi nuyu Diaw Diop di ah euh, de passage Mr Diaw Mr Luchum Luchum. Mhm. Ah, man a moom ñoo bind son bi. d'accord euh, mu nekk son boo xam ne xam nga tey des fois artiste mën nga am dara mais ku nekk dafa am lu muy indi musique partage la. right mhm. it's working together. Mhm. tey benn writer mën na indi loo xam ne tey Mary Ndiaye mën na bëgg wax dara. mais xamul nu mu koy waxee. wala am na koo xam ne euh, moo ko gën a ay ci côté boobu wala mm-hmm. ci moment boobu bi ñu nekk sax am na moom ni mu koy waxee loo xam ne sax yow doo ko mën a waxee mais di nga wax sa soxla li nga bëgg a wax ci sama bi mm-hmm. euh, bi ma indee idée bi moom tam mu indi idée bi ñu boole suñu idée rek ah, mm-hmm. ñu jox la ni ma mel d'accord ni ma mel am na foo xam ne yaa ngi ciy wax ba tudd ci ñaari leader politique waa ah, <laughs> man daal lépp gongo. dama koy teg ci tempo mhm. man ak e, ennemi masta coono man ak yow du Macky ak Sonko. Mhm. Euh, loolu ça veut dire que Macky ak Sonko ay kii lañ. non mais tey dafa mel ni tey rek ma man ak yow du Barça ak. ak Real comprendre mhm. analogie analogie la rek loo xam ne da koy use metaphor dañ koy waxee ci anglais loo xam ne da koy use rek tey gis nañ euh, parti politique bi tey buñ ne Macky dinañ ne Sonko bokkuñ parti mhm. right mais pour sens pour ma ne man ak ñu bokk parti ma tudd ñu ñaar ah booy tudd concurrence wala lii c'est ça rek it was just analogy boo xam ne use nañ ko rek te gisoo ni mu la marqué mhm. c'est loolu la rek euh, dafa mel ni nga ne Barça ak Real mhm. ah c'est d'accord dafa mel ni kon musique bari na bari na ay tendance ante kii naan hmm. maa la raw fii kii naan maa la mën fii <laughs> yooyu dafa mel ni bari na ci trop. loolu la ñuy tuddee ego trip. ego trip booy ah, son ego trip boo xam ne da ngay jaayu ah kafo. Hmm. Euh, ndax di jaayu man ak yow ennemi masa hmm. ay waxin la rek ah, yoo xam ne day neexal rek. donc ma gis ne sa son yu bari itam da ngay choisir drill. mu lay defal ay ay big big maker moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ci. Mhm. te gis naa ni sound boobu yaakaar naa moom moo ko def. non non non non bril bi mujjee bi la def. waaw bu mujj bi la def waaw. mais oh, Charles just moo def euh, bit moo def ni ni ma tout cas sound bu bu la. bu tegu la euh, waaw man dama koy déglu. yow fan nga yaa ngi ci believe wala yaa ngi ci ni ma mel. maa ngi ci ñaar yëpp. ci ñaar yëpp waaw naa ne. maa ngi ci ñaar yëpp mu ngi ci sama répertoire te à chaque fois dama koy bàyyi xel. donc euh, bi nga jógee ci foofu da ñëw indi dawuma. yes. yaa ngi yaa ngi ñëw ne ni ma mel ba pare ne dawuma ñaar la yoo xam ne mën nañ leen méngale parce que wane nga ni nga mel ba pare mhm. wax nga li nekk ci yow mhm. wax nga ne yaa ngi toj koñ bi te da ngay foog gaay rek <laughs> liggéeyagoo léegi nag ñëw nga indil ñu dawuma dawuma ça parle de sa euh, parle d'amour oui mbëggeel mu ngi ci mhm. mais am na leneen lu nekkaat ci biir ci ay message yoo xam ne bëgg naa nga ñëw ci ak Sénégal oui dawuma dawuma mu nekk loo xam ne mu ngi mu ngi génn di hmm. wax ñëpp Mm-hmm. xool ko ah mu nekk son boo xam ne Bril moo ko def Bril 54. Mm-hmm. Ah, te hitmaker ma mm-hmm. koy nuyu moom tam du passage ah bi ñu ñëwee euh, comme ni li ma la wax rek musique feeling la ah. bi ñu ñëwee ñu def idée bi mu nekk son boo xam ne dafa wax ci ego trip la mais ego trip amour des choses comme ça maa nuyu crew crew manji moor yi ma koy nuyu moom tamit king crew ah, moom moo bind taxi comme ni ma la ko waxee rek musique potage la Mary Ndiaye am na lu muy indi ci table bi crew mën na indi dara Mary Ndiaye wéy ko mu dem fenn c'est ça. amul pataasa rek. ah des fois ma bindal sama bopp des fois ma indi ñu bindal ma. mais son bi noonu demee mu ngi tudd Dawma. Mhm. Dawma yoole. Dawma yoole eh, Dawma yoole Dawma loolu. kooku mooy Mary Mary Ndiaye. yes mu ngi ñëw dal ci seen kaw. Mhm. donc euh, gis nañ ne Mary Ndiaye. Mhm. bon ñu ngi koy kiffee nit ñi ñu ngi koy déglu. kañ la ñuy xaar album bi. album album léegi tey incha allah. daa yëpp ñu ngi koy demandé. <laughs> waaw ñu ngi demandé incha allah euh, am na ku ma ku ma wax ne album mooy carte d'identité artiste. léegi tey ngeen jot ma carte d'identité. boo amee carte daal. waaw jox la nationalité nag ne la yow bokk nga ci. parmi les meilleurs donte ni yaa ngi ci. Uh-huh. te ay single rek moo la fa yóbbu. Uh-huh. mais quand même album bi ñu ngi koy xaar. waaw album bi dina ñëw incha allah. d' accord xaar leen ko. d'accord <laughs> donc euh, Marie am nga am nga am nga loo xam ne bëgg naa bëgg naa itam nga wax ci. Mhm. muy doom ju jigéen joo gis dafay bëgg yaay. Mhm. donte ni papa itam ci la bokk. ndax yéen papa da ngeen koy bëgg lool mais mhm. yaay. am ngeen relation boo xam ne wax nañu bu bu bu bu garaaw. est-ce que mën nga ci ñëw. man nag yàlla daf ma dafa may ay parents yu yu ma bëgg macha allah. ñoo xam ne samay gaañ lañ ah. Mm-hmm. sama yaay ma koy nuyu tamit hi mami mm-hmm. ah mu nekk sama waay sama gaañ comme man ak ñoom ah, ay ay gaañ lañ ay meilleur ami lañ mun naa ne sama first best friends yi ma am sama yaay ak sama papa la mm-hmm. ah, ni ma mel ak ñoom da ngay dégg sax ni ma wax ci ni ma mel ne li travail de maman ak sama papa ah, parce que man ak man ak ñoom seen suñu relationship ah comme dañuy kaf dañuy foo dañuy ree Uh, mais teew terewul tam ñu doon samay kilifa. di ma teg ci yoon. macha allah. ma nuyu sama yaay tamit. comme ni nga ko waxee rek ku ma xam ne man ak sama parents yi nii lañ mel. Mhm. chaque minute bu ma toogee bu kii wootewul keneen mu ngi woote. ah noonu la ñuy mel chaque chaque chaque chaque instant. dañuy mhm. dégg ñu naan ma yow sa téléphone bi kenn du la woo ba jot la. Mhm. ah parce que boo wootee maa ngi wax ak sama yaay wala ah, comme ça ma leen di nuyu tamit di leen ñaanal gudd fan. Ah, ñu yàgg fi lool te wér. amiin waay d'accord euh, yaa ngi ci géewu musique te géew bu xaw a la. tentative bu nekk da am. ndax yow mës nga ci dund benn tentative boo xam ne tentative bu doy waar la moo xam mystique la wala leneen ak leneen. non non non non. dund dund nga ma ko euh, te yaa ngi ñajaal du ko dund du ma ko dund. Euh, ndax damay dégg tout le temps nañu di wax ay stories ne musique bi showbiz bi dafa doy waar et des choses comme ça hmm. mais di ñaan yàlla rek mucc looloo ñaan yàlla yàlla musal ñu si ay cat. ak lépp luy yàqee luy lore parce que tey bu ñu comme bëggee def musique duggul ci musique pour def lu bon ah hmm. ñun artistes yi dugguñ ci musique pour pour lore ah. bu ñu ci duggee rek ah, dañuy dañuy bëggee rek comme ni ma la ko waxee rek ah, comme foola rek dañuy bëggee di ci ñaan jàmm defuñ dugguñ ci pour lor kenn wala pour lor suñu bopp wala jël yoon bu bon tey dangay gis tout le temps dañuy juger artistes yi peut-être ñu ne moom la dafa bëgg fo moo tax mu dugg ci musique mais mm. musique xam li mu àndal rek ak ni mu diisee sax pour defar musique pour defar ko ba mu baax jox ko ak jox ko suñu fan si xam ne du duy fu caaxaan dafa am liggéey boo xam ne moom la laaj euh, métti na mm. neex na neexul mais mm. buñ si duggee dugguñ ci pour lore wala dugguñ ci pour yi fu ñàkk fayra wala di di di loraate ah. di ñaan yàlla artistes yi man sama moromu artistes yëpp ñu mucc Ah, ci seytaane mujj ci lu ñaaw ah yàlla la fa ñu cat bàyyi ñu fi ndax ñuy dëggal fan si rek. Mhm. Euh, am nañu jeunesse boo xam ne euh, ñenn ñi am nañu patience. Mhm. mais ñi ci ëpp ñoo man ñoo yem amuñu patience <laughs> dañuy gis ne Marie Ndiaye xëy na am na otoom. mu ngi mhm. génn ci télé bi. mu ngi dëkk fu baax. mu ngi dem ak di ñëw. te xamuñ ne fi mu jaar ba tabax loolu. c'est très dafa am patience. ban ban ban euh, message ngay lancé ci loolu maanaam ban jaar-jaar nga mën a jox jeune bi mu xool foofu xam ne yow mii kat ku jaar fi nga jaar peut dina am li nga am sans pour autant que nga yàkkamti. c'est la patience qui construit la montagne. kooku ci sa way. Oh, xam naa ko euh, boo gisee Mary mhm. gis ne yàgg naa oh, mhm. Mhm. ne bi may commencé wéy bi nekkee xale la euh, te. nit ki mën nga yàkkamti dara sax te waxtoom jotagul. Mm-hmm. right mën nga te booy daw di geestu di xool keneen fakasal da lay yomb. tey boo toogee naan ah, artiste bi am na lii mantam tam damaa war a am lii. Mm-hmm. te xamoo fu mu jaar wala li mu dund tey bul gis Mary Ndiaye rek nga yaakaar ne lépp is cool and nice. Mm-hmm. day am jour yoo xam ne duma yor dara. te am jour yoo xam ne damay damay am am na yoo xam ne tey yàlla. cërale na ma wala suturaal na ma ba am naa yenni mais bala ma koy am tamit damay wax damay liggéey comme ñëpp hmm? damay xoslu comme ñëpp euh, mooy loolu euh, di wax ñépp ne liggéey liggéey mooy base lépp loo gis ci àddina liggéey la am na kooku tey bul gis nit nga yaakaar ne moom de li mu am de ah dafa yomb quoi ba nga dem bëgg def yenn yi pour am ko parce que liggéeyee ko def boo liggéeyee ni moom euh, yàlla mën na la ci fekk c'est ça base bi yëpp liggéey la tey boo gisee nit ki tey dañuy sonn mm-hmm. musique neexul mm-hmm. neex na neexul dañ koy def parce que daf def ñuy bégal mais neex na neexul tey li ngay daj pour defar son on suit son dem studio def ko des fois da ngay nekk si studio bi ay heure def studio ba pare def clip tournage clip neexul ku xam tournage clip xam na tournage clip neexul. ñu am mm-hmm. pour génne ko def promotion bi bu ñu paree jàll ci télé yi ci rajo yi pour jox leen ko. Mm-hmm. delluwaat tamit liggéey ay heure liggéey lu métti pour am sax fonds yi nga koy defee. Mm-hmm. xam nga ne neexul. liggéey mooy base bi ci yëpp. di wax euh, jeunesse bi ñu bàyyi seen xel ci loolu bu baax nee na bu ñu liggéey gëm seen bopp ni da gëm sa bopp mooy base bi da gëm sa bopp gëm li nga doon. xam ki nga doon xam fi ngay dem xam foo war a dem liggéey boo liggéey rek ndimbalu suñu borom dina la ci fekk incha allah. d'accord man message ngay jox suñu autorité politique politiciens yi nga xam ne ñu ngi fii 2024 ça sera les élections présidentielles. Mhm. te Sénégal xam nañ ko saa bu ñu jubee ci yu mel noonu dafay xaw a tàng. oui ban message ngay jox politiciens yi ak jeunesse bi aussi ñu am prudence un peu ci yu mel noonu. ñu daal rek politique at the end Euh, lépp na nit ñi dal rek ah, na am na amul solo ndax politique day jàll. day jàll ah, day jàll. bu élection bi jotee na ku nekk génn votel sa candidat. Hmm. waaye ci jàmm ak pays ak hmm. peace. Hmm. ah juste peace civilise rek ah, ñu jàll ci élection yi na élection day jàll. benn période rek la après ñu jàll yàlla teg fi ki euh, war a tegu fii rek. at indi njiit yàlla ko yor. njiit yàlla koy joxe. mu teg fi ki fi war a nekk rek boo leen voté mu teg fi ki fi war a nekk rek ñu jàll ci leneen. Mm-hmm. développe ndax at the end of euh, ñëpp benn chose bi la ñu bëgg rek pour dëkk bi avancé ah du noonu. dëkk bi mu ne boo leen bëggee dëkk bi avancer rek dañuy dar rek. Mm-hmm. ah dar rek am ak prudence ça. d' accord à part album mën nañu xam lan mooy projet yi y a des concerts wala ay soirées. waaw euh, maa ngi wax ñëpp di dox jëpp. dig daje. Euh, février le 18 février. Mm-hmm. the 18th of February ah Gambie seen indépendance fala ca Stuttgart ah Mairie Ndiaye Stuttgart incha allah. Mm-hmm. dinaa nekk foofu noonu le 18 février. Mm-hmm. Euh, après loolu nag yeneen yëpp dinaa ko communiquer sama page. di wax ñëpp ñu dem suivre ma sama page YouTube. Facebook Snapchat Instagram Twitter fépp. foo xam ne Mairie Ndiaye mu ngi fa nga dem suivre ma fa. day gis actualité yi ah, soirée yi incha allah. ak yeneen ñi ci topp rek oui d' accord ñu ngi lay gërëm naa la bu baax <laughs> merci beaucoup temps bi ñu ma accordé ñu def waxtaan xam naa di nga ñëw plateau peut être yes ñu def direct boo xam ne Ndeye Gueye day toog ma toog nga toog dinaa ñëw incha allah mu gën a mu gën a neex loolu daf may neex voilà loolu moom Feeling ndakaar ñu ngi la ko ñu ngi la jeexaat di la bàyyi nga tàggatoog ñu la doon seetaan di rafetlu invitation bi di mhm. jaajëfal ci disponibilité bi mhm. ah, di tàggatoo ak waa ñëpp képp koo xam ne mu ngi seetaan fii leen Dakar mhm. képp koo xam ne mu ngi bëggee Mary Ndiaye mhm. ah di jaajëfal sama fans anybody koo xam ne yaa ngi seetaan miiri Ndiaye mhm. ah di partager di like di comment ah, ma lay nuyu di la jaajëfal di wax ñëpp ñu dem YouTube ah xool Dawma dem seetaan Dawma yes mu ngi toj dëkk bi <laughs> voilà mu ngi toj bu yem rek waaw xam naa doo ko yëg mais ñun moom ñi ah donc cest à yaa ngi yaa ngi yëngal bu baax a baax a baax. ah merci euh, beaucoup compté ma parmi tes fans. bokk naa ci ñi lay. ah bokk nga ci fans waaw maa maa ah, merci beaucoup di di jaajëfal léegi tamit. léegi euh, ci oui oui ci félicité bi. nit ku baax ah, la waaw waaw mm-hmm. sama mag mm-hmm. ah, maa léegi yàgg na di ñëw. Mm-hmm. sama di ko indi États-Unis c'est la famille. c'est